الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة بن موسى الترمذي mooy suñ bind bu njëkk ci téere bu màgg bi di alchamail al muhammadiya téere boo xam ne boo ko amee ci kër hmm. la neexee nga waat ne yaa ngi ànd ak yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. di ko taalif nag di al imam al xaafid hmm. abu isa muhammad doomi isa doomi sawra doomi muusa ñu koy dàkkantale al tirmidi ngir dëkk bu mu dëkk di tirmidi danañ sukkandiku nag ci taxqiq bu hmm. usaamatu raxaal hmm. na ci taxqiq bu rafet hmm. ci jiitu nag dimbanikoo nag ci liggéey bu kookee liggéey mooy cheikh izzat liggéey addaas liggéey ci liggéey bu am solo waaye nag ndax xadis bi daraja sàngam la am mhm. wér na wala mhm. rafet na mhm. wala lompañ na euh, bu dee Cheikh Ousamatu Raxaal nag moom dugg na ci détail yooyu dana am ci ay jamono yoo xam ne xëy na danañ ca taxaw téere bi nag di alchamailu almuhammadiyati al alchamailu almuhammadiyatu turu téere bi rek dafa leeral li ci biir téere bi mooy meloo yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kii sangu mi déebi ci bind ak ci jikko la boole ci biir téere bi doo ubbi téere bi hmm. jàng li yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax hmm. ak li saxaabaam yi daal daan soxalee jëlee ci moom hmm. lu dul ne da nga janoog yonantu sallallahu alayhi wa ak ñaandoon moom nan lañ meloon bu yëf yi ak bu bu yëf tiisee ak bu neexee lu mhm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam meloon ci mhm. biir këram ak ci marché ba mhm. nan la daan jëflanteeg saxaabaam yi ak niñ daan jëflanteeg moom ci lu feeñ ak ci lu nëbbu di nga mën a taxaw ci kanam nit koo xam ne mooy nit ku gën a mët nit ñoo xam ne ñooy nit ñu gën métti mhm. defar ab société boo xam ne hmm. mooy société bi gën a baax hmm. ndax yonentu sallallahu alayhi hmm. kenn dafa bokkut ak moom dara ci rafet jikkoom ak ci kaweeg jëppam kenn jegexantewut ak moom sàkkaati ko jot ci ngëneel yi ko yàlla booleel sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci askan la moo gën a baax askan ñoo hmm. gën a rafet askan hmm. yàlla boole ko ci askan yu gën a noble hmm. dugalul ko ci askan woo xam ne dafa suufe ndax nit ñi buñ nawul sa askan duñ la nawul buñ la nawul ba moytu duñ jëriñoo sa xam-xam duñ jëriñoo sa jikko duñ jëriñoo sa njëriñ ju feeñ baa ju nëbbu ndax yu bëri li ci biti la seet balaa mhm. ñoo jël li ci biir mhm. te askan ci biti la ne mhm. yàlla defut ko woon it muy ko am alal ju bëree bëri su nekkoon borom alal mën naa am am lu dox diggante mook faqiir yi ñàkk gi mu ñàkkoon it duwul ne ñàkk gu ku ko neexut la woon mhm. ku ko neexoon mu nekk faqiir mhm. ndax lu mu xamee mhm. joxe ko yàlla génne koy ci anam ak njirim ndax bu fekkoon ne dafa am ndey ak bàyyi yoo xam ne dañ ko yàq ni ñuy yàqee gone yi noonu li ñuy wut ci kilifa hmm. duñ ko ci gis hmm. ci ak dëggu hmm. ak volonté waaye it nekk gi nekk jirim taxut muy jirim boo xam ne dafa ne ci àll bi amul ko yore yàlla jox na ko way jur yoo xam ne it jaarale nañ ko buñ ko war a jaarale ñu maamam Abdul Muttalib ak baayam bi di Abu Taalib nga xam ne amut ba ak mbewte dina këram hmm. waaye kenn gënu ko ci jikko it hmm. moo tax nga gis yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. mooy ki gën a diggu dóomu mbewte ku bàyyam yàq new ci moom wa xashaahu sallallahu alayhi wa sallam xam ne fañ ko sàgganee ba amul benn sentiment bu nekkati ci moom new ci moom yàlla def ko def muy gën a digg doomu gën a baax xataa hmm. ci ndawam hmm. yàlla it boole ko ci société boo xam ne lépp loo xam ne hmm. lu arab yi di dund dund na ko boole na ko ci société bi Makka muy teeru yóbbu na ko Taayif yi muy àll bu boole xam désert xam aussi dëkkab teeru sàmm na gàtt balaa mhm. moo sàmm nit mhm. ku mën a sàmm gàtt mhm. da mën a sàmm nit ñi sàmm na waaye soxla woon ak commerce fekkee ne ay xare waaye fekkee ne it jàmm lépp loo xam ne nii lu ñuy nawee nit la ci am am dëkk naag ñu ko xamee waaye lépp loo xam ne it lu ñuy xeebee nit la ci ñàkk mm. dëkk nag ñu ko xamee mm-hmm. yàlla boole ko ci société boo xam ne mm. balaa moo jox pour yar nit ñi nu mm. nit ñi mel yëpp xamal na ko mm-hmm. muy ki gën a baax jógee ci néeg ñu gën a baax yàlla indi ko ci jamono ji gën a xéwén pour risaalatu gi nga xam ne moo war a defar àdduna mm-hmm. te ci biir àdduna gi muy defar la suñu àllaxira di defaroo ko yonent yàlla muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. moo jot ci mët mhm. ci ngëneel loo xam ne kenn nu jotu ko ndax yàlla nee na ko bu jikko doon naar góor war nga ko innaka la ala xuluqin azim te loolu nag bu ma ko defee dama bëgg ñëpp jotuñu ci yow ma arsalnaaka illa rahmatan lil daal di joxoñ ñi ci des nag ne gannaaw kii moo nekk ci njubbaxteenu jikko hmm. ju baax ju rafet hmm. sama yërmande hmm. moom moo ko représenté wala personnage am mooy manifester sama yërmande kon yéen ñëpp jublu leen ko ndax ngeen am yërmande googu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatu liman kaana yarju llaha wal yawma wa dakara allaha kathira wax ne ku ko topp hmm. yàlla nga topp hmm. man yuti illaaha wa rasulahu faqad hmm. faqad faaza fawzan azima waaye képp koo xam ne yonentu la topp way tutixohu tahtadu ko topp rek da nga jub man yuti rasula faqad ataa allah uh, su ko defee nag gannaaw yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama la ñu yàlla wax ne moom la ñu war a roy mm. nekk ci ñun mm. war naa fexe xam kookee nu mu meloon koo mm. xam doo ko mën a roy doo ko mën a roy waaw danañ laajte waaw lan mooy sababu charu waxul ñu ñu jaamu yàlla mi ñu bindu rekk yem ca waaye mu ne ñu nañ topp yonentu sallallahu alayhi wa al muhaqiq nee na moom ci taqdiram hmm. gis na ne ñett a ko waral hmm. bu njëkk bi hmm. mooy doomu aadama bi dañ koo war a tàggat ci yoon woo xam ne dafa organisé wu ba nga xam ne dafay am lu ñuy tuddee al waayu daaxili ak al yaqada ak dabtu nafs maanaam lépp lu muy def hmm. dafa war a nekk lu muy natt hmm. nekk loo xam ne it lu muy fuglu la hmm. ndax booy def dara fekk bàyyiwuloo ci xel mën na am mu yóbbu la ci ak sànk mën naa am mu sànk la ci biir mën naa am mu la ci biti moo tax mu ne Omar ibn al-Khattab Seydina Omar daan wax ne xisaab lañ seen bopp nekk ñu leen hmm. di xisaab te loolu daf lay dimbale ba sa ruux dëppoo ak sa jëmm ba sa ruux dëppoo ak sa jëmm ba nga xam ne lépp looy def rek duut looy def ci sàggan waaye da ngay koy def ci teewlu da nga koy def ci fuglu hmm. léegi nag lépp looy def ci teewlu hmm. di ko def ci fuglu hmm. daf lay dimbale hmm. ba nga mën a dégg not sa mën koo préparer mën ko tamit di ko entraîner mu yokk jëm ci kaw di yokk jëm ci kaw di yokk jëm ci kaw ba la nekk tabiat sabita nekk loo xam ne lu naturel lay doon nekk loo xam lay doon te comme am na kuñ la xamal koo xam noonu la daa nii la meloon nii la meloon hmm. looy def rek di nga bàyyi xel ci ni mu ko defe woon hmm. loolu dimbale la ba sa biir hmm. jubóog sa biti mu ne ñaareel bi li ëpp ci xëccoo yi nit ñi di xëccoo société yi mi ngi dellu ci ñàkk gi ñenn ñàkk dégg aada ñenn ñàkk gi ñenn Hmm. ñàkk dégg aada yi ñenn hmm. koo xamul aadaam hmm. mën naa am li nga ñaawlu ci sa aada moom du dara ci aadaam am na ñoo xam ne ànd dem ci jàkka ji téyante loxo ci ay góor du dara ci ñoom ci seen aada waaye fii ci Amérique boo gisoon ñaari góor yu ànd ci mbedd mi téyante loxo nga ne ay góor jigéen la kon wuteeg aada dana waral ñàkk déggoo Hmm. ndax société bu nekk hmm. dafa am environnement wu boppam hmm. dafa am ay aaday boppam yooyu nag pour mu dëñ ba ñëpp mën a ànd euh, yàlla tegal ñu koo xam ne daf ñu ne nañu roy ci moom bu ñu royee ci moom ya nga xam ne moom la daan def ñun ñëpp ñu di ko def na meloon ñëpp ñu fexe mel ko bu yàggee différence yi ñu amoon ci suñuy aada hmm. dafay mujj dañ hmm. am lu ñu boole loo xam ne hmm. mooy taxaw taxawaayu aada yooyu ba ku nekk ci ñun dootul ñàkk déggoo ak keneen ka ndax ñoo bokk fi ne luñ bëgg ñoo bokk it nuñ mel kon topp yonantu sallallahu alayhi wa sallam dafay servir ummatu bi muy mhm. service société bi mhm. service bu rëy a mhm. mooy lan mooy dana fexe ba seeni différence ci ay aada dëñ ba ku nekk ci ñoom ñu tàggat la ci aada ji nga xam ne moo dëppoo ak melow yonantu mi nga xam ne moo gën a mucc sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mu ne bi ci des roy gi ñuy roy yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. danañu dimbale hmm. pour ñuy xalaat ci jëfi ki nga xam ne hmm. mooy yonantu sallallahu alayhi nga xam ne mooy shaxsiya bi gën a màgg ci taarix danañ ko danañ ko roy danañ ko roy ba mujj personnalité am daal di seey wala daal di jaxasoo ak suñu dund nga xam ne boo xëyee ba ngoon hmm. lépp looy def yaa ngi ci seet nu ko yonantu daan defee hmm. ndigam lekk la hmm. ndigam naan la ndigam jog la ndigam toog la ndigam taxaw la ndigam nàngam la su ko defee yooyu dana la dimbale ba sa euh, conscience euh, tranquille ba sa ruux set mm-hmm. ba sa dund mm-hmm. organisé wu mm-hmm. ba sa mbir biir ak biti baax kon nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam non seulement dañ koy topp ndax borom wax yu la waaye ku bëgg dund bu mët sëkk boo ko xoolee roy ci moom da nga dem ba mëtt doo ko yëg sax sallallahu alayhi wa sallam hmm? kon nag ñett yi mu ne bokk na ci yim foog ne moo tax ñu ñuy toppaloo yonent sallallahu alayhi wa sallam njëkk bi ne dana tax hmm. sa biir ak sa biti hmm. dégg nga hmm. euh, déggoo sa biir ak sa biti déggoo looy def ndax càmmoñ ak ndeyjoor yëpp set nañ lu tax ñuy lekkee càmmoñ bu njëkkee ndeyjoor bàyyi càmmoñ dégg nga waaye bu fekkee da xam ne yonent ñu la daan lekkee ngay lekkee bii di nga dem ba organisé wu looy defati rek da nga xam ne bii càmmoñ joor lañ ko de war a defee su may dugg koo xam ne euh, dégg nga toilette la càmmoñ laay duggee mooy mm-hmm. dugg ci jàkk ndeyjoor laay duggee mm-hmm. su may jóg nii laay jógee su may mm-hmm. wax nii laay waxee su may loolu dafay daf lay organiser sa système ba dootoo defati dara lu dul yànku fukk nit nag bu demee ba lu muy def mu ngi bàyyi xel kooku nit ko euh, biiram jëwoon ak biteem ñaareel bi nit ñi wutee gi ñu wutee seeni aada dana tax ñu ñàkk déggante nit dana def dara nga foog ne la manque de respect mhm. ci aadaam dégg nga loolu mooy respect sax mhm. incha dafay nettali ne am na gan goo xam ne mhm. moo su na euh, ñëw seet ko fa mu jógee kenn ëpp ko fa xam-xam kenn ëpp ko fa daraja wante ba mu ñëwee xale bi ataaya nuyu ko loolu xaw ko naqadi ndax ñoom fa ñu dëkk kii servir nit waru ko nuyu waru ko jox loxo daanaka ñi suufee ñi ñooy def loolu mhm. nee bi xale bi indee deuxième bi mhm. ma ne ko nuyoolu teen suñu caatu kër mhm. suñu amee gan gu ñu fonk suñu caatu kër a koy attaayam dama gis mu muuñ wutee aada yooyu lislaam dafa ñëw pour tàgg ko fexe ba yëf yonantu sa dundu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak na mu daa defee nekk suñu aada nekk suñu xaqiqa bi ci des mooy suñu la sooy roy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp mm. li ngay def mm. da nga dem ba sa personnalité seey ci biir personnalité yonantu mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam melow yonantu sallallahu alayhi wa sallam seey ci sa uh, biir mm-hmm. uh, jëmm mm-hmm. ba nga xam ne looy defati rek mm. uh, moom ngay gis ba ku la gisati rek dana dem ba kooku la xelam di daj dëgg dëgg mat képp ak mat mu ngi foofu bu defee yonantu gindi la ci wàllu biir gindi hmm. la ci wàllu biti na hmm. nga war a mel ba yowmal xiyaamati nga texe nga mel ko hmm. waaye ni ngay mel ba sa dund gi neex ko nga mel ko ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam yi nekk ci dundam yépp moo gënoon a texe ci li yàlla bind foo ko gis rek dangay gis ne ma ngay muuñ sallallahu alayhi nee nag bi muy euh, taxrij xadis yi nga xam ne ñoo nekk ci chamail mm. ci juróom-ñetti téere yi la sukkandiku mm. yu buxaari mm. ak muslim ak abu daawuda mm-hmm. ak nasaiyu mm-hmm. ak tirmiriyu mm-hmm. ibnu maajata malik ak ahmad mu ne léeg-léeg nag mu dem ci yeneen téere su fekkee ne dafa fekk xadis boo xam ne newut ci juróom-ñetti téere yi Hmm? Hmm. moo xam mu dem ci yenn maajimi wala musannabaat wala masanid yi hmm. euh, tudd na sax tudd na nag tirmidi fii xam nga ne téere bi ñuy jàng tirmidi yi moo ko moo ko taalif kon ban tirmidi la bëgg a wax tirmidi yi téere bi la taalif tuddee ko ashamail waaye am na beneen téere bu mag a mag moom taalif boo xam ne moo tudd sunanu tirmidi yi Hmm, sunanu hmm. Tirmidi hmm. bokk na ci mooy juróom euh, benn téere yi gën a siiw sunanu Tirmidi ci la bokk bokkul ak Chamail euh, imaam ibn Tirmidi taalib na téere yu bokkut nit la koo xam ne dundam yëpp ci xam-xam la ko paase dundam yëpp ci xam-xam la ko paase ne tirmidi buñ koy woowee mooy dëkk boobee ca Dafa Chamalia ca iraanu tey dégg nga foofu la waaye boo xoolee digg boobu Turkmenistan Azerbaïdjan ba Iran ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ci wàllu xadis mel ni Buxaari ak Tirmidi Muslim ci zone boobu la ñu cosaanoo imaam Tirmidi nag mu ngi juddu bi gàddaay yonantu sallallahu alayhi amee ñaar mhm. ak juróom-ñeent mhm. ba mu amee ñaar fukki at nag mhm. ci la laxas di wuti xam-xam ci sëriñu dëkkam yi ak sëriñu xorasaan yi mel ni Isxaaq ibnu Rahowi Rahowiya di xam-xam bu mag ak Muhammad ibnu Umar dem na Iraq tamit jàngee ci sëriñu Iraq yi waaye waxuñ ne dugg na Bagdad nag mhm. mhm. dem na Xijaaz ci yeneen dëkk mhm. Hmm? Euh, demul misra demul Sham waaye jàngee na ci seen borom xam-xam bil waasitatu ci ñu jàngee ci ñoom euh, wër na dëkk yi dajeek mbindeef yu bëree bari ci borom xam-xam jàngee ci ñoom waaye euh, imaam Buxaari bokk na ci sëriñam yi gën a ràññeeku dégg nga bokk na ci yu gën a ràññeeku mhm. bokk jàngee na ci juróom-ñeenti sëriñ yi nga xam ne mhm. eh, ay alaymatu sitte yëpp jàngee nañ ci ñoom mhm. maanaam alaymatu sitte yëpp rosaloo nañ ci ñoom bu ñu alaymatu sitte ñu ngi ciy jublu Buxaari Muslim Abu Daawuda dégg nga Ibnu Maajata Nasaa'i ak imaam Tirmidi mi juróom-ñeenti sëriñ yi nga xam ne ñoom ñëpp hmm. bokk nañ jëlee ci ñoom mooy hmm. Muhammad ibnu Bachar ben Daar Muhammad hmm. ibnu Muthanna Abu Moussa la dañ koy dàkkantale ak Ziyad ibnu Yaxya ak Abbas ibnu Abdul Azim al Anbari ak Abu Saïd al Ashaj Abdullah bin Saïd al Kindi ak Abu Xabs Amr ibnu Ali Yaqub ibnu Ibrahim ak Muhammad ibnu Maamar alqaysi mhm. ak nasr ibn ali mhm. eh, ñii mhm. ay sëriñam la yu mu ak ñoom buxaari eh, dafa yittewoo woon torop moom boroom xam-xam yu magi jamonoom fu ñu mënta ne mu jéem a dajeek ñoom jàng ci ñoom dajee naag imaam muslim ibnul xajaaj jàng na ci moom dajee naag imaam abu daawud jàng na ci moom te jël nag imam daara mi hmm. imam daara mi hmm. eh, ci bokk ci limaani hadis yu mag yi hmm. na ci moom naka noonu Abu Zur'a ar-Razi waaye njëriñ li gën a mag nag mooy dajeeyam ak imam Buxaari taqoon ak imam Buxaari lu yàgg jëlee ci moom lu bëri ci xam-xamu hadis ak ci xam-xamu rijaal ñooy xam-xamu rijaal mooy xam-xamu ruwaatul ruwaatul hadis nga xam ne ñooy solo hadis waaye jàng ci ci moom hmm. xam-xamu fiqhul xadis hmm. ndax xam-xamu riwaayatul xadis hmm. bakkuta xam-xamu fiqhul xadis mën ngaa wax ne daal Buxaari mooy professeur am bu gën a mët bu gën a marqué ci taala anhuma bu dee ci madahibul fiqh yi tamit madhab yi nga xam ne ñoo siiw ci jamonoom yëpp dajale na leen nga seen fiqu moo hmm. xam fiqu ahli rëy la hmm. ca Kuufa ak wala fiqu ahli athari hmm. ca Xijaaz yàlla it jox ko ci ay jikko yu rafet ak yu kawe yoo xam ne def nañu tësiir bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñoom la jamonoonte woon waaye def na tësiir bu baax a baax ba imaamatoom kenn sikkut ko maanaam jikkoom yi hmm. bu dul woon jàngam sax jikkoom yi def nañ ko limaan ci jikko hmm. ànd ak nag xam-xam bi mu boole hmm. woon ku sàmm lool ragal yàlla lool dëddu àdduna lool di ku fegu ci lépp loo xam ne lu ñu war a fegu la sori lépp loo xam ne lu lënt la radiallahu tabaraka wa taala anhu ni mu soloo ci ilimaan yu bari it naka noonu la ilimaan yu bëri solo ci moom ñu mel ni ñoom Abu Bakar Ahmad ibn Ismail mm-hmm. na Amir Sumarqandi mm-hmm. ak Abu Hamid Ahmad ibn Abdullah mm-hmm. di Daawud ak Ahmad ibn Abd ibn Ali al-Muqri Ahmad ibn Yusuf Abu al-Harith ak Husayn ibn Yusuf Ahmad ibn Shakir Warraq daawud ibnu nasr abu ubayd ibnu muhammad abul hasan ali ibnu abdu umar ibnu kulthum samarqandi ak alfadl ibnu ammar ak abul abbas muhammad ibnu ahmad ak ñu bëri ci borom xam-xam yoo xam ne jàngee nañ ci moom radiallahu tabaraka wa taala anhu dundam yëpp mu def ko ci jàng xam-xam ak di ko jàngale ba yàlla jël ko atam yu mujj nag hmm. ci euh, dundam hmm. ay bëtam dañoo euh, muuru hmm. radiyallahu tabaraka wa taala jógee fi atum ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent kon mën nañoo wax ne dund na juróom-ñaar fukki at ndax atum ñaar téeméer ak juróom-ñeent la jot la jot jógee fi atum ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mhm. Mhm. waaw mhm. bokk na ci téereem yi gën a siiw mooy aljaami bi nga xam ne moom lañu tuddee sunanu Tirmidi bokk ci kutubu sitta bokk na ci euh, téereem yi gën a siiw ashamail ashamail nabawiya wal xasaais wal xasail al mustafawiya ashamailu nabawiya wal xasailu al mustafawiya moom la ñuy tuddee ashamail Tirmidi mooy téere bii ñu tiim bokk na ci kitaabul ilal hmm. wala al ilalul kabir bu hmm. ci jàngale ilalul xadis hmm. bokk na ci kitaabu zuhd imaam ibnu xajar neen téere boobu nag yegg si ñeel ñu bokk na ci taar kitaabu taarix asmau saxaaba al asmaa wal kunna ak kitaab boo xam ne mu ngi ko def fil asaanil mawquufa yooyu yëpp ay ay taalifam lañ ak yeneen yu dul yooyu waaw ñu ñii la suñ borom xam-xam yi mas a mel jàng jëfee ak jàngale jàng jëfee ak jàngale seen àdduna yëpp ci loolu lañ ko eh, ci loolu lañ ko dépensé loolu lañ ko passé moo tax yàlla tamit desal seen tur ba foo dem ci àdduna tey ñu ngi leen di tudd loolu li leen ko may mooy jàng mm-hmm. jëfee ak jàngale mm-hmm. surtout sellal mm-hmm. ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal loolu yaaram ñu jàng xadis ju njëkk ji bismillahi arrahmani arrahim dina qaala alxaafidu turam wala dàkkantalam mooy abu isa turam dëgg mooy muhammad ibnu isa baayam la mm-hmm. ibnu sawrata at-tirmidhiyu mm-hmm. nisbatan ila tirmidhi muy mm-hmm. dëkk bi nga xam ne fa la dëkk eh, na xadis yu njëkk ji baabu ma eh, buntu bu njëkk bi baabu ma jaa fi xalqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy buntu li dëkk li dikk ci bind yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent nu meloon ci bind bu fii dana nekk ci bunt bi wala bu nekk na ci bunt bi arbaata achara fukk ak ñeent xadisan ci xadis nee na xaddasanaa nettali nañu abu raja turam mooy qutaybatu bnu said an malik ibni anasin jëlee ci imam malik ibni anas an rabiata jëlee ci rabia ibni abi abdirahman an anasin jëlee ci saydna anas ibni malikin radiallahu anhu annahu naka moom samiahu dégg na anas maanaam moom rabiata ibni abi abdirahman dégg na anas yaqulu muy wax kaana rasulullahi kaana nekkoon na rasulullahi hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam hmm. laysa bit tawili duut hmm. muy aji gudd albaa ini kay aji bir kay aji feeñ ji gudd laysa bit tawili duut muy aji njool albaa ini kay aji feeñ ji njool ana yonentu njoolul woon ba mu xëpp xam nga daf ne daf ñuy wax ni yonentu meloon waaye dafa mel ni dafa njëkkee ni yonentu melut woon Hmm? ni yonantu melut xoon la njëkkee hmm. bu la nu melut xoon hmm. nga xam ne li safaanoog ni melut mooy ni mel sallallahu alayhi wa sallam eh, kaana nekkoon rasulullahi sayidna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa njool albaayi ni bit ji njool kayaay ji feeñ ji njool kayaay ji fës ji njool wala bil qasiri duut muy aji gàtt yonentu njool lu xoon ba mu ëpp hmm. waaye gàttul xoon hmm. wala bil abyadi hmm. doonul woon di aji weex al am xaqi kay aji tàlli weexul woon tàlli al am xaq mooy ashadid waaw buñ ko indee gannaaw ba ab abyad mooy tàll wala bil abyadi duuloon muy aji weex al am xaqi tàll weexutoon tàll wala bil aadami hmm. duut muy aji ñuul hmm. yonentu ñuulul woon hmm. sallallahu alayhi wa sallama weexutoon it tàll wala bil jaadi nekkul woon karawam di aji kotomu alqatati day aji tat ci kotomu yonentu sallallahu alayhi wa sallam karawam kërlewutoon ba mu ëpp wala bi sabti neewuloon di aji tàlli yonentu karawam taaliwul woon hmm. ba ëpp hmm. waaye kotumul woon ba ëpp hmm. ci diggante bi la nekkoon sallallahu alayhi wa sallam baathahu llahu na ko yàlla taala mu kawe mi mu nekk di ndawam ñeel jaam ñëpp penkook soowu yonentu bu fi mos ñëw yàlla daf la yónni ci aw xeet waa mu yónni la ci ab dëkk yónni la bokkut benn jamono mm. walis jamono mm. ci aw nit walis mm. nit waaye yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni ci ñëpp yónni ko fépp yónni ko ba faaw sallallahu alayhi wa sallam baathahu na ko yàlla taala ala rasi ci bi mu amee ñeent fa aqaama mu sax bi makkate ci makka achra sinina fukki gaatal ñett rek la bëgg a wax mhm. waaye comme dafay dégg nga euh, dafay généraliser mhm. mu mu mu mu doylu ci àqd bi rek àqd bi mhm. te indiwu naa wax fukki at ak ñett waaye bu ne ashra sinina euh, niñ jàngee woon ci téere bi ñu génn léegi ñeent fukki xadis la wax da ko tuddee waaye boo xoolee danga nga gis ne ñeent fukk ak ñaar la hmm? waaw mm-hmm. def naa fi boo waxee def naa ci dëkk bi fukki at mm-hmm. euh, te fekk fukki at ak benn nga fi def mm-hmm. waaye juróom-ñeent nga gis ne fukk dafa gën a yomb rek te li nga fiy def jege loolu moo fukk jege nañu wa qaama sax bi makka te ci makka achra sinina fukki at ak fukki at ak ñett la wa bil madinati ak madina achra sinina fukki at muy ñaar fukki at ak ñett ci eh, diggante Makka ak mm. Madina mm. gannaaw bu ko yàlla yónnee mm. sallallahu alayhi wa wa tawafaahu faat ko yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. ala rasi sittina sanatan mm-hmm. bi ma amee juróom benn fukki at mm-hmm. benn fukki ak ñett la oh, loolu nag ci eh, sana xamariya yi lay nekk lool ba sana xamariya yi waaye bu dee sana shamsiya yonentu dund lu ëpp juróom benn fukki ak benn walaysa fi rasihi hmm. de nekk ci boppam hmm. wa lixiyatihi ak sikkiñam ishruuna hmm. lu mat ñaar fukk saaratan ci karaw bayda ay yu weex yonentu sallallahu alayhi wa sallam na ba jógee fi béjaawut tax béjaawut ndax ku béjaaw duñ mën a compte ñaata karaw ci moom yu yu ndax karawam yi béjjaaw yi hmm. dana am ci xadis bu ne ma konteel naa yonent bi yooyu béjjaawam ci hmm. karawam ak ci euh, boppam ak ci yëpp hmm. mu ne fukke fukk ak ñeent la ci gis am na ñu wax lu ëpp loolu waaye li wér mooy amuloon ñaar fukki karaw yu béjjaaw loolu mooy wane ne béjjaawutoon bon béjjaaw ñaareel euh, stress dana koy wane dana koy xam dana koy waral koo xam ne lu ñëw tiital la mhm. boo moytuwul da ngay gaaw bi jaaw mhm. am na ñoo xam ne nag seen bind la mhm. waaye li gën a bëri stress mooy tax nit ki gaaw bi jaaw te yonent bi nag gannaaw gërëm na dogalub yàlla bi moo lu tax muy stressé sallallahu alayhi wa sallam hadis ji hadis ju ju wér la imam Tirmidi ni la ko génnee ci buntu libaas baabu ma jaa fi jummati ci xaari shaari Euh, euh, déedéet loolu mooy deuxième xadis bi mm-hmm. waaye xadis ju njëkk ji mm-hmm. mu ngi ci buntu buntu libaas yi Buxaari mm-hmm. ak ci manaqib bi hmm? sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam imaam muslim indi na ko ci fadail tirmidi indi na koy fi manaqib baabu fi mabaati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wabni kam kaana xaytu bu'ith xadis ah, ju waaw ju rafet la ju wér la imaam malik indi na ko ci buntu siratu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp nag euh, seen riwaaya mi ngi jaaree ci seen sanat mi ngi jaaree ci rabia ibn abi abdurahman rabia ibn abi abdurahman mi nga xam ne bu ko déggee ci anas min malik radiallahu taala anhu waa ñu taxaw foofu ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim amin ya rabbal alamin